amnistie bii non noo koy mën a def koo xam ne rey nañu sa doom rey nañ ko xamoo yan condition xamoo ku ko rey 74 personnes yoo xam ne dee nañu ci ay conditions yoo xam ne lëndëm nga bëgg ñëw taxaw au dernier moment da ngay jël benn loi amnistie pour loolu yëpp naxasaay naxasaay dégg ngeen Ousmane ko position par rapport à saa et c'est toute la position la position de la coalition waxuma ni nag si on situe les responsabilités ba lépp leer moom tamit mu def li muy def li mu war a def mooy président Macky Sall mooy bàyyi ñi mu war a bàyyi doxal li mu war a doxal respecter constitution mais nag wax dëgg yàlla bu boobaa mën nañu waxtaan mais tant que defoo loolu waxtaan mënul mënuñu sax xalaat waxu waxtaan négociation mënul am ku ku am dignité ku mel ni Ousmane ku mel ni euh, Diomaye mënuñu taxaw ñu dañuy négocier sur le dos du peuple pour simplement sa tirer d'affaire